juróom-ñaari kaamil yi saa waxit yi yi mbooloo mi dajee jàng waaye lu jiitu bés bi sàkk woon nañ ci njabootu boppam gi ku nekk lum tuuti tuuti mu jàngal ko benn kaamil ah yow defoon nga seen kaamil yu bopp moo xam ñi fi nekk la ak ñi fi newut maa ngi am sama mbokk yu baax yoo xam ne ñu ngi ci York ak yenn état ñoo xam ne ñoom it def nañ seen kaamil ngir góor gi ah macha allah añ maram macha allah macha allah nee na Adja Sakho doom di doom ci góor gi ak def na ci kaa caan suñu mag tamit doom ci góor bi ak soxnaam yaay def na ñett yi suñu mag di doom ci góor gi def na ñett moom it waaw soxna moom maa ngi bàyyi sama benn jabaat gannaaw buñ jiyee ñu kaamil ca zawiya Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ca Faas radiyallahu anhu di doomi njéeme Useynu ah, ah di doomi njéeme di suñ jarbaat maa ngi bàyyi ca zawiya ba mu koy jàngal kaamil foofu am na tamit soxna yu baax yu ma yónnee message ci suba bi ne ma ñoom it defal nañ ko ay kaamil te ñoom ñu ngi ci suñu programme suñu institut en ligne bi dama eh, beneen doom Lamine Dramé bi mbay Dramé it ñooy wax ne ma wax la Bachir ne la kaamil pare na du dëgg kon xëy na yiñ ma takk yi xamut ñoo ko gën a bari ndax bi ñu waxtaanee ci groupe bi ba noppi dañoo lancé woon message ñu bari jël nañu engagement ni koy saal waxee rek koo xam ne moom léppam alxuraan la euh, dimanche bi ñu fiy jógee mooy dimanche bi nga xam ne ñun ñëpp ñu daan daje bi wàcceel kaamil balaa bi ñu mujjee wàcc ci dugam di ko ko informer si paal temps bu tuuti la fa nekk tàqoo tàqalikook ñun euh, lu kon nag quran dox alhamdulilah ñu am yaakaar ne alquran yi ñu jàng barke bi dana ko fekk fa mu nekk làmb ko yépp ci ay ak i mbokkam ak soxnaam som fa neel ak njabootam yi nga xam ne jiitu nañu ak bépp jullit yal na yàlla loolu yaaram yi ci ustaas ñoo fi nekk ustaas Mahmoud bi mag la waaye suñu sëriñ la ñaari Mahmoud la sax Muhammad Dramé ak Mahmoud Dramé ñoom ñaar ñëpp jàngal nañu kon buñ fi ne ñu waruñoo sax kàddu ñu def xatmu bi rek xëy na ñoom ñoo ko waroon a def sax comme am nañu góor gi ñu war a boole ci xatmu bi xëy na looloo atte ñun ñu koy def waaye ñoom ñoo waroon a ñoo ñu gën a baax ñu gën eh, mën a jàng lépp it ñu koy def ci ndigalu suñu way jur wi bi bàyyi laa Omar Saaxo nga xam ne amuñu suñu bàjjan bàjjan at góor gee bokk bàyyi waaye ñoo góor gee bokk bàyyi ñu góor gi daan xool bët yooyu la ñuy xool xëy na bu fekkee kañ li leen waroon def nañ ko ba ko romb na yàlla gën leen fee yàggal suñuy mag yi fi teew ñoom soxna Fatma bële soxna Fatma toujours damay nettali kilifteef ci moom am na loo xam ne sax duñ dugg ci détails yi waaye ni mu nangulee woon góor gi néew na ku ko nangulee njaboot ku njaboot gu ko nangulee kilifa bi muy ñëw fii Dakar góor gi ko ba mu yeggee daf ne ko dama la bëgg may borom kër xam ne amul xaalis rafetut te mag la waaye taalibe la nag te it fasuma la fee def la muy def ba pare ànd ak moom indi ko fii ci kër gi yóbbu ko ci kër Baay Alaaji Keeba mu dafa ba ñu fa demaan Baay Alaaji Keeba dafa leen wax ne ah, faat saafo de moom waaw ah, daf ko daan dugg suñ kanam kon moom bu fi teer mooy kilifa jotaay bi jigéen ñi moom rakkam yi bokkal ñoom soxna Mambu Saak ñoom soxna Thiam nag ñi ci topp ñoom Adja Ngenaar ñëpp rek Adja nag ñu lawbe ah <laughs> alhamdulilah comme li ko oustaz waxee ca kanam xëy waxtaan wi dana gën a yaatu ñoom oustaz Bachir ak ñoom oustaz ma ma dënk waaye man moom amul waxtaan ñoom danañ def waxtaan incha allah ñu fas yéene kon jàng kat xam bi